wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat mbokk yi asalaamaaleykum wa ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ñoo ngi leen di nuyu ci bés bii nga xam ne ni muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Touba ca kanam amal exposition bu am maana bu mucc ayibit ci lépp loo xam ne nii rek nit bëgg na koo xam ci Touba ca kanam bu jaaree ci exposition bi dana ko xam lu yaatu la lu yànj la waaye lu amaana la na nag du teew ñuy nataal président Touba ca kanam yi sëriñ Abdoul Fattah mi nga xam ne mën nañ wax ne mooy initiateur bi mooy réalisateur bi moom la ñuy jox sunu micro mu wax ju lenn ci exposition bi sëriñ Abdoul Fattah ñu ngi lay nuyu di la bi li ñu lay njëkk laaj mooy. fan la ñuy tàmbalee ci exposition baab Maanaa bi jërëjëf sëriñ Cheikh Amar ñoo ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp euh, di leen jaajëfal bu baax a baax fii ci makkaanu Touba ca kanam mi nga xam ne ñoo ngi ko def ci buntu kër sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi jàkkaarloog jumaay Touba ji nga xam ne bii mooy ñaareelu yoon ñu ñëw di ko fi amal. Euh, yoon bu njëkk ba nag biñ ko fi amalee euh, dañ ne woon nañu gaaral liggéeyu Touba ca kanam yi réalisation yi nga xam ne moom la Touba ca kanam doon def Euh, li ëpp ci suñu ay communication foofu lañ ko doon jëmee waaye nag jëmmi Touba ca kanam gi nga xam ne ñoom ñooy amal loolu ñoom ñooy laaj murid yi ñaar téeméer par weer di ko def fu ñu xam ñoom naka la ñu naka la Touba ca kanam tëddee naka la organisé woo naka la structuré woo loolu tey loolu la ñu gaaral fii pour ku fi ñëw xam Touba ca kanam ci biiram nan lay doxee waaye nag bu booba commission boo xam ne ña ngi koy wax dinañ waxaale lenn ci li nga xam ne moom lay moom lay liggéey bu defee nga xam ne di nga xamaale Touba ca waaye xamaale euh, lan lay liggéey loolu kon tey mooy objectif lii nga xam ne moom la ñu def fii ci wàllu exposition te sëñ Modou Korolo ak sëñ Mbaye Tène jiite ko ànd ko mbokk yi ñu ko àndal yëpp ñu ci bu am solo mu nekk makkaan moo xam ne mboolem membre Touba ca kanam yi maa ngi jàkkaarloo sëñ Modou Atta Seck mi nga xam ne kenn la ci waa diaspora bi mboolem membre Touba ca kanam yi fu ñu jógee ci diaspora bi ci biir réew mi bitim réew dañu ñëw dajee si fii mu nekk lieu de rencontre bërëb boo xam ne dañ fiy saafante di fi fi di fi gisante ndax li ci ëpp dañuy déggante rek ndax Touba ca kanam yaatu bu mu yaatu muy lu am am solo loo xam ne Euh, ñu ngi ko fi defaat mu nekk ñaareelu édition bi waaye fas yéene nañ nag euh, bu ñu fi yàlla bàyyee muy wéy. ci diir bu gàtt bâche bi yànj na liggéey bi aussi vraiment ànd na ak professionnalisme yaakaar naa ne ñu bëri gëmuñu woon ne lu mel nii war nañ ko mën a réaliser en un temps record yaakaar naa li nga wax it ci quartier général bi nga xam na tey day mel ne boo ñëwee màggal si ziare te yegg si woo ci exposition bi day mel ne dafa am lu lay manqué tuuti nag. waaw rawatina ñi nga xam ne nag Touba ca kanam di leen te Touba ca kanam taalibe yëpp la ñor moo tax euh, lu muy def ñëpp dañ ci dañ ci safoo ànd ceeg moom rawatina liggéey yu mujj yi ñu mujj a def du du du du lu mën a ñàkk fi Touba kanam toll ak dégg-dégg yi ci nit ñi am bu ñëwee faaw ñu yóbbu leen foo xam ne ku bëgg a xam dara ci tubaaja ca kanam di nga waaye comme élément yëpp a ngi fi woon dañoo dajale rek composé daal di ciy génnee loo xam ne dinañ ko mën a wan mbooloo mi fii ñëw. waaw léegi fan la ñuy tàmbale dafa mel ne waa diaspora bi aussi ñëw nañ ñu nga ne la toog waa diaspora bi ñëw nañ soxna yi soxna yi ñu ngi dee toog mën naa cee lim ku mel ne soxna Alimatu Dukure ak yeneen soxna yi ñu àndal ku Maam Say Diouf ak ak soxna Astuwaaj mi bi ak soxna Maam Fatou Lam euh, at mu mooy jàpp ci liggéeyu nga xam ne mooy wax ci opération defar yoon yi balaa ñu ci commission yi euh, tableau bi ñu jàkkaarlool Cheikh moom mooy expliquer mooy leeral liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci ñaari weer yi xoolee démarrage le 8 août 2020 lañ ko tàmbali tuddee ko opération defar yoon yi liñ ci jot a récolté ba tey jii ñu ngi koy estimé ci un milliard six cent millions un milliard six cent millions yooyu nag li nga xam ne moom lañ ci réalisé euh, damay damay damay damay njëkk damay njëkk a wax ci li nga xam ne moom lañ ci réalisé doog ñëw ci li ñu mobilisé pour man ko réaliser. liñ ci jot réalisé gis nga ne toll na ci cinq virgule cinq kilomètres de voirie d'une largeur de dix mètres maanaam ay tali tali dëgg-dëgg moom lañ ci liggéey luy tolloog cinq virgule cinq kilomètres euh, li yaatoo yaatoo dix mètres euh, am na tali bu nekk Kër Sañ Ñaan Diop am na bu nekk yoonu Daaru am na bu nekk euh, fi ñuy euh, fi jëm pencum kër ñang am na bu nekk yoonu fi xaw ga euh, tali yooyu mooy yi nga xam ne boo ko boolee da lay jox cinq virgule cinq kilomètres de largeur de dix mètres mu nekk tali boo xam ne tali au vrai sens du mot nga xam ne pare na à quatre vingt pour cent ay finition rek ci des incha allah bu ñu màggalee ba noppi ko. lu li ñuy wax radier submersible xam nga am na ay zones yoo xam ne ay points bas la ci dëkk bi boo jëlee fu mel ne Tokor ba. foofu jafe-jafe la woon fu mel ne station Shell moom waa Ageroute ñoo ko liggéey ñoo ngi li profité di leen ci jaajëfal ci ànd rajo bi nekk foofu ànd gi ñu ànd ak Touba ci kanam waaye boo jëlee yoonu tubaa Njaareem foofu euh, kaar yi Sénégal dem dikki di taxaw ak boo demee ba ca kaw nga jàddal mel ne lu jëm usine euh, xorom foofu ñu wax euh, pencu mbay wadd ñaari rajo yi ñu nga fa yoo xam ne Touba ci moo koy réalisé boo demee yoonu Kër Baylaat nga xam ne jafe-jafe la woon ci at yi yëpp ka ca kanam mooy réaliser rajo yi nekk foofu oto daanu na fa ba tey kon boo boolee rajo yooyu da jox deux mille cent trente cinq mètres carrés de rajo submersible moom la ñu réaliser. bu ñu ñëwee ci wàllu canalisation xam nga boo jógee station Shell ba fi nga xam ne moom la waa AGEROUTE doon liggéey bi ñu defee rajo bi pare Touba ca na moo fa tëral ay tuyaux def canalisation bi indi ko ba ci tali bi jógee quartier Mbaye Wade ñu créé foofu benn station de pompage moom lañ bind fii benn station de pompage. jëlaat ay tuyaux yu jógewaat ci buntu gendarmerie bi nekk ci euh, garage Dakar bu njëkk bi mu romb sa romb sapeur pompier euh, romb buntu kër sëñ Touba gi nekk foofu dem raccordé wu ji ak tali bi jógee euh, Touba Njaareem ànd nag dugg ci station de pompage bi ñu installé foofu ay pompe dugal ko ci benn tuyau refoulement mu jëm nag ci rond point garage Dakar waa ONAS aussi defal ñu ak jàpp jàppandal ci raccordement yi ñu ñëw raccordé ko ci réseau ONAS bi nga xam ne moo fa am mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko foofu lu jëm ci wàllu sëkk bi mooy fekk bu ñëwee ni ñu koy def mooy dañ koy xolli génne ndoxum euh, ban ban ban yi nekkoon ci suuf ak poto poto yi ndax boo ñëwee sëkk ci kaw rek te ban ba des fa day tax bu tawee du seey. ak mbalit mi dañ koy xolli dindi mbalit mi dindi ban ba fa nekkoon ba mu set indiwaat fa suuf su bees suuf si ñoo ngi koy jëlee dëkk bi ñuy wax ngay mbaaloo maire dëkk bi moom moo joxe espace jox ñu ca suuf sa fa ñu ay peel di ko chargé di ko indi et liñ ci indi ci ay camion lim bu bëree bëri la ndax luy tolloog cinquante et un mbedd mbedd trente ay mbedd vingt mètres mbedd yi nga xam ne mooy mbedd yu gën a mag ku ñëw ci dëkk bi ci ngay jaaree pour dugg lijjanti nañ ci li tolloog juróom fukki mbedd ak benn yoo xam ne bu ci nekk dañ koy tàmbalee cat ba cat ba foofa foofa waay neex mën a jaar jàll loolu mooy li nga xam ne liggéey nañ ko ci opération defar yoon wi ci ñaari weer yii léegi nag li ñu mobiliser pour mën koo liggéey xam nga Touba ca kanam bu wootee borom alal yi dañuy ñëw borom xam-xam yi ñëw borom doole yi borom xel yi ñëw borom xam-xam ñu leen di wooye ay ingénieurs yi ñu ci joxe seen bopp ci liggéey bi toll nañ ci 42. jaayante ñenn ñi ñenn ñi dañoo ñëw teew ñeneen ñi dañoo nekk à distance parce que léegi fi jamono toll mën nañ ci 42. ñi nga xam ne ay conducteurs de travaux lañ nga xam ne ñooy taxaw ci terrain yi di conduire liggéey yi nañ ci 20 techniciens yi mën nañ 100 équipe bénévole yi boo ci jiitalee Baye Fall yi gis ngeen bi ñuy gas coono biñ ci doon daj ak njàmbaar giñ ci wone euh, ñooñu euh, euh, nga yokkaat ci équipe plombier yi parce que diirub liggéey bi tiwo buñ koy raccordé mooy tiwo yi ngeen gis nii diirub liggéey bi koy raccordé plombier yi ñoo jaayante ñëw ñëw ñëw ñëw di ci jàpp. wante lu jëm ci wàllu sécurité am na lu ñuy wax am nañ benn responsable HSE mooy hygiène service sécurité kooku njëriñam mooy. day boot ay loxoom yorub saagam di wëndeelu di xool lu mu gis di jàpp ne lii jaarut yoon ci wàllu sécurité wàllu hygiène mu mu prévenir jubbanti ne lii nañ ko tegee nii nañ ko defee neenu loolu moo chantier boo gis da ci am te chantier dafa yaatu woon am nañ aussi benn bureau de contrôle boo xam ne dañoo wax ak moom signante ak moom contrat pour mu ñëw di contrôler techniquement travaux yi donte am nañ beneen bureau de contrôle jaayante bu fi boo xam ne li ci ëpp par week-end la ñuy ñëw di vérifier euh, ñu bari dañuy wax ne Touba kanam lu tax liggéey bi bi mu ko commencé jëlu ko yëkkati ko jox ko entreprise xamuñu ne ci biir liggéey bi Touba ca kanam engagé na douze yoo xam ne signante na ak ñoom contrat jox leen ay liggéey ci biir liggéey bi donc kon li nga xam ne Touba ca kanam ci ingénieur bi mu jëloon ICP bi ingénieur chef de projet ñu koy wax Baye Ngagne Thiam moom ci boppam mën na koo mën na koo taxawu yooyu moo koy taxaw yi ci des nag dañoo recruter jël ay ingénieur ay ay entreprise signé teg ñoom contrat ñu yor liggéey yi suñu ay ingénieur di leen superviser suñu technicien di leen superviser kon lu tolloog su euh, douze entreprises sous-traitant jël nañ leen ci liggéey bi nga xam ne ñu ci bëree bëri sax dese nañ ay finition bu ñu màggalee ba noppi dinañ ko eggale engin lourd yi bokk na ci li xaw a seeral bi tuuti ndax xam nga li ñu doon liggéey dafa soxla woon ay équipement yu wóor li ñu soxla woon ci ay pelle chargeuse matoon na dix te Touba ca kanam ñaar rek la ci amoon donc il fallait ñu luyee ñu luyee li ñu soxla woon ci ay gradeur liñu ñu soxla woon ci ay compacteur soxla ko ci ay tractopelle soxla ko ci ay poquelin lim bu baree baree la woon àggoon nañ ci di fay chaque jour plus de quatre millions ci location par jour location engin yi quatre millions pour mën a réaliser li ñu réaliser euh, ci ñi nga xam ne ñoo ci doon jàpp nag jaajëfal bu baax ñi nekkoon ci waañ wi bu ma ci tuddee euh, euh, Ibulaay tudd ci soxna Ndey Diop dana mën a yóbbaale ñi ci des ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi doon jàpp ci liggéey bi ci wet gu ne tolloon nañ ci 217 ñi nga xam ne ñoom lañ xam mais bari na ñoo xam ne xamuñu leen loolu la ñu ñoo mobilisé woon pour def réalisation yi ñu def ci deux mois yi loolu image yi moom lay illustré gis ngeen ne lii ay ay kii la ay bus en béton la yoo xam ne diamètre un mètre la moom la ñu traversé ci moom la traversé ci yenn point yi nga xam ne ay points yu critique la nga xam ne ay engins lourds dañuy jaar ci kaw euh, lii gis ngeen Baye Fall yaa ngi nii ànd ak équipe plombier yi di yor liggéey boobu sëñ Abdoulaye Mbacke mii nag moo nekkoon coordinateur projet bi ñuy wax nii sëñ Abdoulaye Mbacke gis ngeen ko euh, coordination wu defar yoon wi nga xam ne guddeeg bëccëg suba ngoon doon na ci daj coono yu bëree bëree bëri euh, lu ñëpp mën a seede sëñ Modou Boussami ci ñi ko doon jàppale la bokk sëñ Sidi kenn ci ñi yoroon équipe bu Eh, mbedd fekk mbedd yi la bokk eh, Mafari Ndiaye eh, sëñ Abdoulahi Mbacke kii moom mooy seenub donga rek góor si nga xam ne mooy donga bi li ci def mi ngi noonu kon loolu mooy première table bi nga xam ne moom moo concerné concerné defen yoon xam naa nag bu ñu bëggee topp commission yi dina gudd waaye yow ñu bàyyi la nga xool li waaw li lii lii lii mooy première visite terrain bi nga xam ne. Cheikh Bass def na ko bi ñu doog a démarrer rek ba tëral latérite bi. gis ngeen euh, euh, sëñ Abdoulaye Mbacke mi nga xam ne mooy chef de projet bi moo nekk noonu mooy nga xam mooy coordinateur projet bi sëñ Cheikh Bass. sëñ sëñ Abibou kii mooy euh, sëñ Ngancam mi nga xam ne mooy ICP bi. Mame Mbaye si laa ngi noonu ak ñeneen ñi nekk ci ginnaaw. sëñ Balla Mbodj ñoo ngi koy nuyu de passage kër sëñ Ñaan Diop waaw. foofu compliqué woon na ndax bi génnee fa guy ga nekkoon dafa nekk benn déeg boo xam ne dañoo mujjoon sax jàpp ne ndox mi day génne ci suuf boo xoolee sax defoon nañ fa benn benn benn lu mel ne benn toile buñ ci laloon pour mu bloquer ndox mi techniciens yi lu ne daj nañ ko fa mais nag mujjee nañ ko réussir xaalis bare bare nag dem na fa avant ñuy lijjanti déeg boobu noonu lu mel noonu aussi moo am yoonu Cheikh Awga da ci am euh, euh, milieu yoo xam diggante yoo xam ne déeg lay doon déeg boobu nag boo nit dañ koy sakkee ak mbalit boo génnee mbalit ba noppi day des pax mu rëy rëy liggéey bu mag a mag a mag la laaj xëy na sax bu ko doole ji mate woon dañ koy <laughs> bëri hmm. eh, ñu comprendre. Eh, Touba ca kanam liggéey bi ñu doon def dañuy jàpp ne eh, waa tubaa ca kanam ay boromi bloc daal ñoom ñoo fi daje di def loo xam ne xëy na xam-xam bu kawe la hmm. ndekete Serigne Touba moom am na lu nekk ndaxte ñu bëri umpule nañ ne. non seulement yéen ci dëkk bi ngeen nekk di liggéey ci dëkk bi créer sax am ngeen entreprise parce que am ngeen ay jumtukaay loolu yéen war ko boole ci liggéey bi jënd ngeen ko mais di sous-traiter ay marché ci yeneen entreprise nga xam ne déjà yéen a ngi suqaliwaat parce que liggéey bi defe naa ne rendement bi foo ko natt weesu na ko bu weesoo tali yi bu weesoo piste yi nga fi wax te defe naa ne njëlbeen gi ñaar fukk lañ waxoon ne moom la ñuy def dem ngeen ba cinquante ya bëri na ay yoo xam ne daal defe naa ne kon lii firnde la ci lii ngeen mobiliser un six cent ci diirub ñaari weer loolu day tekki ne mburit yi bu leen neexee weer wu jot mën nañoo yëkkati ñaari milliards teg ko ci loxo yi Touba loolu it bëggoon naa nga ñëwal ma ci tuuti waaw. Euh, xam nga sëñ Cheikh firnde jaa ngi noonu xam nga euh, li nga wax dëgg la ginnaaw diiru weer ci la ñu mobiliser un milliard six cent li muy tekki mooy weer deux milliards bi ñuy wax lu yanu maanaam la lu mën a nekk la euh, leneen li ci topp mooy. Euh, euh, xam nga dañuy wax entreprise entreprise entreprise boo mën a jël ay borom yi xam-xam a fa nekk li ñu jàng loolu la suñu 42 ingénieurs yi jàng ñooy am même xam-xam bi te am na lu ci dolleeku mooy ñi dañoo ëpp volonté ndax ñi pas-pas la ñu indi ak jaayante yëg ne Serigne Touba li ñuy liggéeyal bokkut ak nag koo xam ne moom wutkatub xaalis la day xëy huit heures bu heure de travail am matin fam fam yam fa la koy yemale loo ci dool da nga koy fay bokkuñu donc kon ñii ñooy ëpp rendement ñooy ëpp mooy mu tuuti mooy ñi ci jàpp tax jaayante yee tax ak tamit Touba ca kanam amul presque fonctionnement ndax lu mënta ñàkk rek la ñuy fay ñu dem ba mënta ñàkk mais yi ci ëpp ñi ci nekk dañ koy jaayante jaayante boobu nag mooy li ñu tubaa doon woo ndax Serigne tubaa bu ñu fàttalikoo bu ñu delloo ci xasida matlabul matlabu shifa yi wax na fa wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma ñaan yàlla suñu borom xiir ñu ci ñuy ñuy ñuy xidma maanaam di liggéeyal nit ñi te yàlla tax te sax ci dàq te sax ci dàq jaamu yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi euh, structure Touba ci kanam ni nga xam ne noonu la noonu lañ ko structuré donc commission yaa ngi nii communication ngi nii. commission communication. waaw ah. bi ñoom ñoo yor ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu communication ci Touba ca kanam magazine bi ma doon wax léegi ñoo koy def euh, publicité yi ngee di gis ci télé yi ñoo koy def. plateau yi ñoo koy organiser di ko négocier ak télé yi contrat yi ñoo koy signanté ak euh, groupe de presse yi nga xam ne ñoo fi nekk ak rajo ak yooyu. communication bu intense bi daal bu agressif. bi waa commission communication ñoo koy def. boo ñëwee ci lii mooy waa commission des finances. Euh, commission des finance mooy commission boo xam ne mooy Touba kanam Cheikh. mooy genn kuréel gu ñu xam. xëy na xam mën naa am yow nga xam ko wala keneen goo xam ne weer wu dee mu def bilan financier di liggéey ci xaalis ba noppi weer wu dee nga génnee bilan financier loolu yombut nga gis kuréel gu koy def te loolu wa commission de finances ñoo koy def ci sous commission gestion des fonds ci njiital seen Xaadim Diouf ñoom ñooy taxawee liggéey boobu amaan na sous commission carte à membre ndax carte yi ngay gis nii agros yi euh, carte membre yi agros yi ñoom ñoo koy toppatoo ñoo koy saytu ñoo koy lijjanti amaan na sous commission achat li ma doon wax léegi ci wàllu Euh, li ma doon wax léegi itam jëm ci wàllu njënd meeg njaay meeg euh, nañu lijjantee prix yeeg qualité bi ñu jënd ak yooyu loolu waa sous commission achat ñoo koy toppatoo am na sous commission recouvrement ndax léeg-léeg nit ñëw jël ay bloc grossier ki carte de membre dem lu xaw a yàgg day laaj ñu du ko ñu du ko toppaat ak lijjanti sëñ Abdoulahat Mbacké moom Serigne Djili moo jiite boobu commission li ay firnde la yu jëm ci gestion des fonds bilan yi nga xam ne ñoo ngi koy présenté par weer par par par weer bi mooy commission massification ñoom seenub liggéey mooy du yaatal Touba Ca Kanam waaye fexe ba nit ñi du bokk ci Touba Ca Kanam ndax euh, commission des finances euh, commission communication ñoom ñooy fexe ba nit ñi dégg Touba Kanam comprendre waaye ñii ñooy fexe ba nit ñi dugg ci biir liggéey bi mooy waa massification euh, seen programme phare bi nga xam ne mooy mooy bi ñuy nga doxal gën gën a doxal mooy bi ñuy woowee café Touba Kanam wàcc ci gox yi dajeeg mbooloo yi ñu tàngal kafe ngoon ñu waxtaan sëñ Baara Mbacke moo ko jiite ak Baye Modou Mbaye mais gis ngeen leen ñooñu ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci liggéey bi soxna yi tamit ay jàmbaar lañ ci lool bu ma tuddee soxna Bintu Mbacke euh, comme ni ngeen gisee seen photo bii nii soxna Bintu Mbacke ngi nii soxna euh, soxna Mbaye Dioum soxna Mbaye Dioum ak soxna soxna Bintu Sarr soxna Mame Fatou Mbaye xëy na ñooñu ñooy symboliser yeneen soxna yi ci def yëpp ñoo leen di ñoo leen ñoo leen di représenté bu ñu ñëwee ci commission bii mooy commission sociale et solidarité mooy commission dimbalante commission bu ama am solo la euh, bayit wee nga xam ne def nañ ko ci kaw waltu bashir bi yal yataama dawaaman an fihim bi abaahum kulla xiini loolu Serigne Serigne Touba moo ko wax moo ko moo ñaan boromam jirim yi ak baayo yi way tumuranke yi moom moo doon seen bàyyi fu fu bët xonqe mu saafara ko loolu moo mooy mooy jëmmal commission sociale bi nga xam ne ci loolu la ñuy liggéey ñi nga xam ne léeg-léeg ñu am jafe-jafe ci wàllu wér yaram ba mu jaaxal leen ñu taxawu leen ñi am jafe-jafe ci wàllu dëkkuwaay gis ngeen ko ni ñii nga xam ne kii nga xam ne këram gi mi ngi dëkkoon ci loo xam ne daanaka ay ay ay saaku la ko la ko sànge woon ñu mujj ko ko tabaxal ba mu mujj mel nii yo yooyu mooy liggéeyu commission sociale boo ñëwee ci wàllu santé gis nga soxna si ak njaboot gi amoon na jafe-jafe ci wàllu wér lool waaye waa commission sociale taxawaay bu am solo sëñ Mourtala moom sëñ Abdou Fatah mii ngeen gis nag di di kilifa di ku baax moom moo jiite commission bi ànd ak Mame Baye Sylla le secrétaire ñu ñëw di def ay recensement pour indi ay ndimbal. ci dañuy fekk nit ñi fa ñu nekk. Euh, lu lu mel ne tabaski bu jotee dañuy fekk nit ñi fa ñu nekk di leen jox ay ay ay yére lu mel ne korité bu jotee dañuy fekk nit ñi fa ñu nekk jox leen ay bon ñu ñëw ci dëkk bi jël si ay ndimbal li ñuy dajalee li ci ëpp du jóge ci xaalis Touba Ca Kanam waaye mem du ci 1000 francs yi membre yi Touba Ca Kanam yi ñooy volontaire wu jaayante di ci def ay cotisation loolu moo tax seen numéro Orange Money ngi noonu seen i euh, compte banque ngi noonu commission bii mooy commission administrative ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu administration bind ay correspondance bind ay lettre mu dem envoyé toppatoo ay documents ni ñu ko xamee ci wàllu administration sëñ Mame Mbaye Sylla mooy le secrétaire général moo ko jiite. waaye sëñ Khadim Diouf mooy l' administrateur bi nga xam ne moo féete bureau bi. Mhm. kenn ci ñoom di sëñ Lamine Sarr mi ci ñi nekk France la bokk ba nekk bokk ci kii am na ñeneen ñu nekk bitim réew pour wax la ne Touba ca waa bitim réew Euh, lii nag mooy Touba ca kanam. Touba ca kanam naka la tëddee naka la Touba ca kanam mel kañ la juddu 2016 la juddu Touba kanam lan mooy ay yitteem dëgg-dëgg mooy dajale weeru de ku nekk jox ko ñaar téeméer ñu dajale ko liggéey ko sëriñ bi. Euh, am na ñaari personne morale mooy sëriñ Abibou ak sëriñ Abdoulahat moom sëriñ Abibou am na comité directeur boo xam ne juróom fukki nit ak benn ñoo composé am na bureau exécutif bureau exécutif mi ngi ci ron comité directeur nga xam ne ci la bi nekk mooy Ngor see ngeen seen ne. am na commissaire aux comptes am na bureau d'inspection et de vérification pour leeral am na euh, ay am na ay coordination am na ay coordination euh, coordination waa bitim réew am na commission yi nga xam ne moom la ñuy lim ñoom ñëpp mi ngi foofu ñu ñu ñu kii ko fi. mooy commission santé bokk ci commission yu bees yi nga xam ne Touba ca kanam créé na ko gis nga déjà poste de santé yi nga xam ne Touba ca kanam liggéey na ci luy. de santé bi boobu la. boobu rël la boo seetluwut fa tey bu baax nag dangay jàpp ne benn bila ndax poste santé yëpp a bokk. concerné coordination diaspora ñoom nag du ab commission mais coordination la ñii ngeen gis nii ñoom ñoo ko jiite waaye ñii sëñ Abdoulaye moom sëñ Abibou moo leen jiite. alaaj sëñ Tàkko Mbàkke mi ñu teg fii moom mooy ambassadeur Touba ca kanam l'infatigable moom fu mu jëm ci àdduna bi foo rek uh-huh. ma nga ma ma nga ma nga ca ca kanam ñii ñooy ñi nga xam ne nag ñooy taxawu liggéeyu diaspora bi diaspora bi nag toll na ci juróom fukki dëkk ak benn dëkk bi ci mujj dugg Iran la république Iran Iran am na fa représentant donc nga xam ne Touba ca kanam mi ngi fu nekk ci àdduna bi ñoom na ñu ci def liggéey bu am am solo di ci daj coono yu jeex waaw léegi réalisation ñoom ñooy réaliser li ngeen di gis ci liggéey Touba ca kanam yi bu waa étude étudier ba pare. comité directeur bu validé étude étudier ba pare dañuy jox waa réalisation. Mhm. ñoom ñooy taxawu liggéey yi. ànd koog entreprise yi nga xam ne ñoo gagné marché di leen taxawu buñ soxlaa ciment buñ soxlaa fer buñ soxlaa yi ñuy soxla yëpp ñu di ko to mhm. sëñ Mame Thierno Ndiaye mais moo ko jiite ak sëñ Mamadou Niam mhm. yi ñoom euh, poste de santé yi ngeen fi gis. Euh, mbaar yi ñu doon def ci daaray alxuraan yi nga xam ne waa comité scientifique et culturel ñoom ñoo ko doon taxawu waaye euh, euh, université bi bâtiment yi ñu am ba ci ba ci adduction d'eau yi sous commission la ci lamp yi ñu installé sous commission la ci lépp lu jëm ci wàllu réalisation moo nekk noonu. même la logistique. logistique ak organisation. organisation sëñ Mourou Mamoun Gadiaga mais moo ko jiite di doyen ci liggéey bi moom tamit logistique lépp luy jumtuwaay Touba ca kanam ñoom ñoo koy gérer ñoo koy toppatoo moo tax nga gis engins yi nii. lépp luy waaw Basir Lo mi mooy seen secrétaire di jàmbaar lool ci liggéey bi jumtuwaay Touba ca kanam yëpp ñoom ñoo koy gérer ñoo koy saytu ñoo koy toppatoo commission beneen bo am lu mu ci soxla ci ñoom ngay ñëw ñu mën la caa jox boo noppee nga delloo leen ko commission bi mooy comité scientifique et culturel lajnatul almiya wa saxaafiya euh, Sëriñ Chouaïb bu di diwaan Ndoye mais moo ko jiitee Sëriñ Mor Sourang sëñ euh, sëñ Fallou Bousso mi nga xam ne euh, jëwriñ la ci liggéey bi bokk ay borom yi xam-xam ñii ngeen gis ñii ñi ci ëpp ci ñoom ay borom yi daaray alxuraan lañ ay jàngalekat lañ ay jàngkat lañ ci xam-xam rek ci lañ di dox ak yëngu moo tax lépp lu jëm ci wàllu culture lépp lu jëm ci wàllu science ñoom ci yooyu ci loolu la ñuy dox wet googu la ñuy féete Touba ca kanam. am nañ commission ci commission yu bees yi la bokk ci la bokk ci commission yu ñu doog a samp ndax xam nga ci wàllu environnement Cheikh. boo xoolee Touba ni mu situé woo dafa nekk ci millier boo xam ne bu dee ci wetu gànnaar gi. dafa xaw a jege loo gën a jege boori gànnaar mu gën a désert mm-hmm. euh, te mu nekk bërëb boo xam ne dafa war a bari ay garab ndax borom da ko tuddee woon ak garab la ko tudde Touba ak garab la ko tuddee kon dëkk la bu war a bari ay garab ci Touba kanam ci la unifié woo ci loolu tàmbale ndax euh, dëkk bu ñàkk bu am problème dégradation de l'environnement nga xam ne garab yi doyut day def effet day def jeexital ci wàllu wér gu yaram donc boo bëggee jëmale dëkk kanam faaw da ngay fexe ba dëkk bi dëll da ngay fexe ba dëkk bi set dangay fexe ba dëkk bi am cadre de vie boo xam ne ñi fi dëkk dañ day ñi dëkk ci dëkk bi sax am nañ ci xem xemmeem nañ ko waaye ñu gën ko koo xemmeem gën ci am te loolu mooy méngoog li nga xam ne loolu la sëriñ bi ñaanoon ci dëkk bëgg ko kon loolu ci la waa environnement di liggéey euh, gis nga ko camion mbalit yooyu mooy yi nga xam ne moom nañu ñu woon mm-hmm. euh, lu jëm ci euh, tata yeeg mooy yi ñu doon yooyu dañ ko dañ ko defoon sax dañ ko tuddee woon ab comité nga xam ne ñëpp a ko bokkoon waaye teewut sëñ bi jiite environnement moom lañ ko dénkoon mu doon ko coordonné di sëñ Abdoulaye Mbacké borom borom dëgg et contrôle ñoom ñooy étudier hmm. ñoom bu ñu soxlaa benn projet ñoo koy étudier hmm. buñ ko étudier ba pare ñooy élaborer plan yi naka lañ ko war a defee bu dee lu ñu war tabax ñooy ñooy topp plan yi ay ingénieur ngi ci biir ay xeet gu ngi ci ci wàllu xam-xam sëñ Abdoulaye Doomale moo ko jiite euh, sëñ Daouda Wilane mii la ci àndal di kenn ci yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo taxawu liggéey Touba ci kanam ci anam gu ne sëñ Abdoul Aziz Mbacke Madialis ñu bari xam nañ ko ci yoon wi ak euh, gis nga yenn rencontre yi ñu am ak yenn réunion technique yeeg réflexion yeeg yu ni mel loolu li Touba ca kanam bëgg man koo am kon xëy na fi la ñuy jeexale euh, tournée bi am na solo fii jeexale li li doy waar mooy bi Touba ca kanam juddoo bim juddoo ak léegi ça fait quatre ans mhm. tey bu doon nit la mhm. ku am ñeenti mhm. daanaka bërki démb la <laughs> la feral ah nga nekk di di di di bajantu alors bu fekkee ne nag euh, structure bu mel nii la nga xam ne dafay ànd ak jamono yaakaar naa ne ak lii nga xam ne jot nañ ko fee def ci exposition bi mais vraiment maa ngi leen di félicité bu baax a baax a baax mais lii am na solo te it dina taxit nit ñi xam ne c'est vrai Touba ca kanam nit ki du lu muy sol mm-hmm. waaye nit ki du dafa xees wala du dafa ñuul loolu Serigne Touba yaakaar naa jàngaloon nañu ko bu yàgg moom lañ jàngaloon ca ca ca Masalikul uh-huh. xam nga euh, li sëñ Moustapha Sall yu doon wax naan complexe ñaar la uh-huh. koo gis jàpp ne moo la supérieur ak koo gis jàpp ne yaa ko loolu waru waru waru ñoo dal te toujours dañ ko war di moytu li ñu war a euh, xam rek mooy sëriñ bi lu mu bëgg dana am ñan ñoo koy amal danga war a góorgóorlu bokk ci ñi koy amal. lii sëñ Mountakha doon wax barki dem bi fa sëñ Abibu demee doon wax ne yitte dafa yëmut ak dara ginnaaw dogalub yàlla fu fu mbir egg yitte ko fa àggale kon Touba ca kanam kuréelu yittee la. kuréelu pas-pas la kuréelu yëg-yëg la loolu moo ci moo ci moo ci moo ci bàyyi nit ñi léeg-léeg sax da xalaat ne bu dutoon mbirum sëriñ bee man nga ne ndax wóor na kuréel gu juddoogut amaguñ ñeenti at di doxin wi ndax doxin wi gaawut ba ëpp ah, waaye da ngeen mujj dalalaat sa xel ci ne liggéeyub sëriñ bi la te sëriñ bi moom suñu borom defal na ko lu mu defalut kenn euh, te te te fam fam koy jaar ak fam yi jaar ay mbiram loolu diggam ak borom rek la noonu dañ cee nekk rek ah. di dem ni waaye sëriñ bay doxal nañ ci nekk rek sëriñ bay doxal wajalilaahi maskani tubabat misrak mi abi jaayi xayri manabat